set sett sax nangu leen ko mais balaa ngeen gëm ngeen vérifier non seen bus sont là ils sont ouverts loolu mooy suñu problème ñun suñu problème c' est pas qu'on on on on ne fait pas on fait peut-être on doit faire plus on doit faire mieux on est d' accord mais ñun ak yéen nañ d' accord ci lu am ba pare soog a nañ ne lii xeet nañ ko nañ yokkaat ñu dolli leneen donc que ça soit Tunisie que ça soit Allemagne que ça soit Soudan chaque rapatrié a eu a à un pécule à l'aéroport de Dakar xanaa nga jaar feneen mais chaque rapatrié par nos soins tu as eu droit à ton pécule l'ouverture de Barcelone ñoo ngi ci soxna Maam Jaara ça va ça va mais procédure la diggante état ak état la bu doon suñu coobare rek ubbi nañu bureau yi ba teg fa nit ñi mais dafa am fu mu war a jaar mu ngi jaar te incha allah dina agsi migration circulaire tam wax nga ci am nañu ay sénégalais yu dem ñoo ngi noonu Espagne euh, di liggéey et avec l'Espagne nous avons convenu qu'il y des générations de jeunes qui vont y aller et au fur et à mesure d'ailleurs on va améliorer la qualité des Sénégalais qui vont là-bas pour le moment li ñu doon wax depuis quelques années nañ liggéey ci tool yi mais ma ne leen ñun bëgg nañu leneen bëgg nañu ñu ñëw fekk ay chauffeur qualifié la ñu bëgg nañu ñëw fekk ñu ci entreprise di liggéey bëgg nañu ñëw fekk ay informaticien la améliorer le profil de la qualité du bénéficiaire de la migration circulaire ñoo ci liggéey ak Espagne ak ñeneen parmi également la euh, les questions nationales Air Sénégal international Air Sénégal c'est seulement Air Sénégal Air Sénégal pourquoi Air Sénégal bokkul ci aji bi c'est parce que il y a un règlement de l'Arabie saoudite te Arabie saoudite nag nga bañ ko nga bëgg ko màkk ji fa la nee de kaaba gi sampuwul feneen ku bëgg aji màkk faw nga dem foofu te ñoom seen réew la te ñoom ñoo joxe sart yi ndax seen réew la c'est Arabie saoudite qui impose à chaque État de faire transporter la moitié de ses pèlerins par sa compagnie privée à elle sa compagnie à elle Arabie saoudite maintenant l'autre moitié par une compagnie nationale ou une autre compagnie. C'est ça que nous avons négocié. Et le président Macky dit, à partir de l'année prochaine, cherchez une dérogation avec l'Arabie Saoudite et faites tout pour que Air Sénégal puisse transporter l'ensemble de nos pèlerins. Mais loolu ay débat la ay discussion la du question jaay doole jaay doole sax ko sotti de dangay dem waxtaan ak ñoom dégg ak ñoom ba am seen xel. te xam nañ Arabie Saoudite suñu xarit la lu ne mu ñu koy may lu ne mu ñu koy defal te yaakaar naa bu ñu waxtaanee ñoom dañu déggal loolu ñu xam ne léegi am nañu suñu drapeau muy Air Sénégal mën nañu yóbbu suñu ujaaj yi par Air Sénégal ñu mën a am loolu ak ñoom loolu la ñu président Macky sant te loolu ñoo ngi liggéey quant à voyager Air Sénégal nag man de kenn dàquma voyager Air Sénégal xam naa keroog bu ma gisee Air France day fekk ni Sénégal bu demul rek mais tant que mu ngay dem maa ngi ci biir te ministre yëpp a ngi ci biir parce que loolu la président Macky Sall santaane cest pardon voilà xam nga wax ji lan la kenn gën gënu fi gën a bëgg sa morom ak Sénégal nga a pas de à donner ni de patriotisme ni d'intérêt national ñun ñëpp a bëgg suñu réew ñun ñëpp a bëgg air Sénégal ñun ñëpp ñoo bëgg mandargal Sénégal voilà donc loolu ku laajte woon ñu wax la ko nga xam ko. député député Samba Ndong député Samba Ndong ki Samba Ndong waaw nga rek moo tax waaw mais tukulóor tukulóor buy wax séeréer buy dugg wax tuum séeréer mën na si juum Samba Ndang Samba Ndang léegi du kontaan nga <laughs> waaw mani avant tout moi je voulais vous féliciter pour la proposition gis nga man pour de proposition dama lay parce que tout compte fait on est là que pour ça pour améliorer le travail vous avez beau être vous m'avez dit ici des propositions que j'ai notées pourquoi ne pas ouvrir des bureaux pour la convention apostille dans les emplacements les régions pour désengorger Dakar c'est ça la proposition non mais voilà si on peut le faire on le fait Parce que notre intérêt, ce n'est pas de voir les gens en train de faire la queue, en train de se bousculer, en train de... Bon, il y a quelques mois, ça n'existait pas parce qu'on n'avait pas encore ratifié la convention. On n'avait pas adhéré à la convention apostille. Donc c'est pour vous dire que les choses vont progressivement. D'arrêter une sortie. Même chez de Il fait des jours et des jours. Donc euh, ça va venir, Inch'Allah. sur le rapatriement de dépouilles mortelles, autre question nationale, c'est l'honorable député Waressa. Honorable député, chaque année, vous votez ici, il y en a qui millions pour rapatrier les dépouilles. Au mois de mars, on a fini. Là où je parle, le budget est fini. Fini. Parce que, pourquoi il est fini C'est pas parce qu'on a à rapatrier pour 500 millions c' est parce que ku jóg te nga am moyen nga ne indil ma sama néew loolu yéen député yéen war a dimbali ci loolu les 500 cent million est pour les néew ji doole ñu amul dara tëm comme li ñu doon expliqué sànq nekk ci àll ba amuñu dara seen famille amul amuñu dara ñu jàppale leen ñu ñuul mais ku jóg na na ngeen ñu jàppale na ngeen def nii na léeg-léeg sax man bu dee député ma ne ko jëlal sa indemnité nga indi sa mbokk bu dee ministre ma jëlal salaire nga indi sa mbokk parce que nañ waxante dëgg lii jëmul kër on ne peut pas continuer comme ça il faut un jour qu'on s'arrête et si on doit s'arrêter yàlla na fekk déggu nañu ci loolu mais en tout cas moi c'est un énième appel que je lance chaque année je l'ai lancé à l'occasion du débat budgétaire chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir à l'Assemblée nationale pour nee leen jàppale leen rapatriement de dépouilles yi ku a jàppale sa mbokk sa dépouille jàppale dépouille parce que dégg dégg ci bitim réew neexul dëgg ku dee bitim réew neexul mais il faut que loolu ñu jàppante ñu d'accord ci parce que lii mënul continuer mais ñoo ci sooxaale di seet à chaque fois en réfléchissant de façon pratique de façon particulière qui on peut ramener qui on peut euh, euh, euh demander à sa famille de nous dispenser de cela les refus d'exécution des décisions de justice Serigne Abo Mbacké encore Serigne Abo Mbacké Thiam qui dit que l'État refuse d'exécuter les décisions de justice rendues à l'international mais c'est une disposition de la loi du Sénégal nul ne peut forcer l'État à exécuter une décision personne ne peut exécuter l'État C'est pas international, hein? c'est national, c'est notre loi qui dit ça. Donc, il ne faut pas penser que l'État, lui, il considère que ça je le fais, ça je ne le fais pas. Quand l'État le fait, l'État s'abrite sous un texte. Il s'abrite sous un texte pour le faire. Donc, Est-ce qu'il veut exécuter la décision Il l'exécute de façon volontaire. Est-ce qu'il ne veut pas exécuter la décision Nul ne peut le forcer à, exécuter, une décision. Parce que l'État, c'est la puissance publique et il a ses prérogatives, il a sa qualification, il a cette responsabilité, il a ce devoir, mais il a cette protection. C'est et là je viens au prétexte et au contexte, c'est les questions de politique et de diplomatie, en commençant par l'honorable député Abba Mbaye. Abba, que je reconnais avec sa fibre et sa formation, qui me dit diplomatie de bon voisinage, faire de telle sorte que nous puissions éviter tous ces contentieux pour l'intérêt majeur que nous avons. Oui, honorable député, nous sommes tout à fait d'accord et c'est à ça que nous travaillons. Je suis rentrée de Rosso il n'y a pas une semaine ou il y a maximum une semaine, j'étais avec le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie pour aller visiter l'avancement des travaux du pont de Rosso parce que c'est ça la diplomatie du président Macky Sall. C'est de voir dans tout ce qu'il doit faire dans tout ce qu'on peut faire et qui est l'intérêt du Sénégal, enlever tous les aspects nocifs, négatifs, de détails qui vont nous plomber, sans tenir à l'essentiel, travailler à cet essentiel pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Voilà ce qu'il a fait avec le pont de Gambie, voilà ce qu'il a fait avec le pont a fait avec le pétrole et le gaz, voilà ce qu'il fait avec le Mali pour notre corridor, voilà ce qu'il fait avec tous les pays qui nous entourent. De la grande de la haute diplomatie, de la diplomatie de paix et de la très haute diplomatie. Voilà celle du président Macky Sall. Maintenant, les diplomates. Les diplomates, on a parlé de oui, on a politisé les consulats. On a dit oui, les consulats ont été agressés parce que c'est devenu des lieux politiques. Mesdames, Messieurs les députés, Je voulais qu'on s'entende sur une chose. Faire la politique est peut-être la chose la plus noble au monde et vous tous, vous la faites. Mais faire la politique, ça n'a jamais voulu signifier la violence. Et moi, je suis choquée de voir que des députés ici se sont indignés du fait que j'ai fermé le consulat alors que personne n'a dit pourquoi est-ce qu'on a cassé le consulat. Mais pourquoi Qu'est-ce qui a justifié qu'on aille à Milan, qu'on casse le consulat de Milan, qu'on éparpille les documents de Milan, qu'on détériore le matériel de passeport de Milan, qu'on détériore le matériel de carte nationale d'identité de Milan. Mais c'est des actes de vandalisme et de sabotage. Quand nous avons fermé, quand nous avons fermé, quand nous c'est vrai, quelqu'un l'a dit, On aurait pu peut-être fermer Milan, fermer Paris, fermer Bordeaux, fermer New York, pour ce que vous en savez, et laisser les autres ouverts. Mais on a dit, on prend une mesure radicale. Ce que nous voulons, c'est que les Sénégalais s'arrêtent et se disent qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on a eu ça ici dans mon dossier. Je peux vous donner lecture, parce que moi, quand je dis vous avez fait une faute, je dis voilà la faute. mes, documents sont tous les communiqués que j'ai reçus de soutien pour la fermeture des consulats. Ah oui. Tous les communiqués, ils sont là. Le dernier d'un organisme qui s'appelle SOS Casamance, que je ne connais même pas, mais qui a déploré le saccage ah, des consulats et qui a dit, oui d'accord, moi, quand je reçois les communiqués, il n'y a pas de couleur politique dessus. On ne met pas le drapeau de l'APR, on ne met pas Yéli, on ne met pas PDS. C'est des Sénégalais comme a des Sénégalais comme vous et moi qui s'indignent de ça et d'autres et d'autres encore. C'est vrai, j'aurais mieux apprécié même que ça soit encore d'autres. Mais si c'est des Sénégalais de la paix, alors bravo à eux de m'avoir écrit. Je le dis parce que c'est la vérité. Alors, quand nous avons fermé, c'était pour provoquer l'effet de choc. Vous savez ce qui se passe à Milan? Vous savez ce qui se passe à Milan? Pendant des jours on ne pourra pas délivrer de passeport pendant dix jours pendant dix jours on ne pourra pas rapatrier les détenus aujourd'hui je suis en train le consul de Milan de faire rapatrier de Naples de faire rapatrier les détenus de Milan parce que nous sommes les des Sénégalais yéen ëpp la ñuy yërmande de ni ngeen leen di yërëme noonu lañ leen mais bu dara amee dañu naan dara am na ah. ñu seet ni ñu koy réglé et moi j'aurais aimé ici qu'on ait fait même une motion pour censurer déplorer ce qui s'est passé dans le consulat bu boobaa ngeen mën a wax bu boobaa bu boobaa ngeen mën a wax ñu déglu leen c'est ça la vérité man je fais partie des gens qui pensent que jàmm am na lu ko gën de pour man xam nga jàmm dañu naan dara gënu ko mais pour man am na lu gën jàmm xam nga lan moo gën jàmm dëgg wax dëgg moo sut jàmm nit ñi bu ñu waxantewul dëgg jàmm du mës a am kon boog bu dëgg amee nañu waxante dëgg ji te dee loolu la fi wax no wax dëgg ji te loolu fi des nañ waxante dëgg consulat yi nañ leen bàyyi sekk ñu dara ak politique bi ñuy dox ñun consulat yi nañ leen bàyyi sénégalais yëpp lañ fa nekkal consulat yi nañ leen bàyyi